jërë ngeen jëf mbokk yi euh, ñëw nañ fii ci euh, Touba Sourah daayira Ahlu Café daa daayira Ahlu Café Hizbul Khadim Touba Sourah ki fi ki ko président bi nag day sëñ Moustapha Diasé Bada Bamba nekk ci liggéey bi ab euh, Ablaye Thiam ñu di ko wax banaana nekk ci liggéey bi ñu doon ñoo xam ne que bisu tey bii bu jeexee ci leen waajal déwén lu am ci alal ju lew ci seen góor góorlu ñi di ko dajale ba màggal ñëw période màggal bi yëpp ñu def koy bernde def ci teraanga yoo xam ne ko foo ko natt dina ko ko weesu ci lu rëy luñ mën ak luñ mënul dañ koy def di ko joxe ak yéene di fekk nit ñi fi nekk amuñu nelaw guddi amuñu nelaw bëccëg defar teraanga bu mu mën di doon boo bëggee lim day day jafe te seen tuur nag koo xam ne que dangay ñëw di leen dimbali déedéet kuy ñëw da leen ciy fekk. boo leen ci ñëwul it fekk leen ci ñuy def lu baax mu dem bu baax a baax kooku mooy kon ki ni jox kàddu gi mooy président bi di sëñ Moustapha Diassé mu wax ñu waa Ahlu kafe seen njariñ lan la ci bisu màggal Touba auzu billahi mina seytaani rajim auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di ziar nekk sa tur sant di ñaanal suñu jàmbaar ja nag Cheikh Saliou Mbacke yàlla na suñu yokki leeram sa tax barkeem ak mboolem njabootu Cheikh Khadim di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu tam wér ak mbooleem njabootu sëriñ bi ba lim namm liggéeyal ko maam mu def ko ni mu soowee borom di ñaanal sëriñ Seex Jëmbu Faal mooy mu yàgg fi loolu tam wér ba lim namm liggéeyal ko Cheikh mu def ko ni soowee borom ba ànd ko mbooleem njabootu sëriñ bi ak taalibe waa di am contentement rek wax dëgg yàlla ci waa Tektal TV xam ni defoon nañ ko daaw ren it defaat ko yàlla na ngeen ko yàgg def ci barke Serigne Saliou di am contentement bu baax a baax bis bi nag moom boo leen ñu ci laajee dañ ci sawar wax ndax mbégte la ci ñun ndax wax dëgg yàlla sëriñ bi moom looko ko waay defal rek maanaam da ngay jéem mais sëriñ bi dañoo defal lépp maanaam dañoo liggéey lépp rek jox ñu maanaam sëñ bi ba sonn jotee dafa sonn ndax lépp ngir ñun ñu jariñu kon nag bis bi mu mu ni woon bu dikkatee ñu sant le ma yàlla suma sun yàlla suñu borom kon nag dañ ci am contentement ba nga xam ne tey jii suñu borom dimbali nañu man bokk ci liggéey liggéeykat li sëriñ bi tànn ñu koy liggéeyal ndax sëriñ bi moom yaakaar naa ku ko na ma liggéeyal dëgg moo ki nga xam ni tey jii am nga ndimbal mu boole ci ñi ñi koy liggéeyal mais ba koo liggéeyal nga taxul nga liggéeyal ko sëriñ bi da ngay da lay boole ci boppam nga liggéeyal ko kon nag dañuy sant bam ñu boolee ci njabootam xeetal ni ci tamit ñu jël suñu ñaq lan am mu néew mu bari muy dërëm ba ci na mu gën a bare ñu jël ko di ko def ay teraanga di ko def jox gani sëriñ bi kon sëriñ bi moom wax dëgg yàlla ñun dañoo lott ci wax ci moom waaye daal gars moom ñi ngi ci daal ñi ngi ci. lan moo indi turu Ahlu Café. turu Ahlu Café li ko sabab mooy maanaam xam naa ni sax loolu sama jëriñ yi ñoo ma koy gën a xam ndax li ma leen di wax rek toujours xëy na man gars yi dañ maa nommé nii rek mais ñoo ma gën a am ay pësiyef ndax lu ci mel ne ay jëwriñ Ousmane ay Bada jëwriñ Ablaye ay Abdou xaar rek gars yi ku lim juum mais wax dëgg yàlla man dañ maa jiital mais ñoo ma gën a nekk jaaw tur yi nag li ko indi xëy na déedéet 2013 la ah, comme ni ko gars yi waxee rek toujours dama ne ko ne man damaa dabe ci déedéet bi jëruñ ju baax ji xam liggéey Sëñ Tuubaa rek ko ñor muy Sëñ Ablaye Thiam wax dëgg yàlla ànd ak tout tànk yi ñu toog waxtaanee ko maam dañoo bëgg a liggéey sëriñ bi def dayra ahlu café subul xaddim waa def dayra ahlu café biñ ci waxtaan ak Sëñ Ablaye tamit mu boole leen mu déglu leen ànd ak ñoom ci Sëñ Ahmadou Aras moom ñu koy nuyu bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi te wér tur bi fa soqi ko mu jox leen ahlu café subul xaddim Tuubaa sura hmm. ci la liggéey bi dooree waaw 2013 waaw 2013 te boobu ba léegi amul tànk ginnaaw boobu ba léegi yokkute rek nañ ci gis ndax wax di yàlla lu ñu defoon daaw bu déwénee ñu yokk ñu ci sant yàlla bu baax a baax kon yàlla Tektal TV yokk comme yàlla Tektal TV yokk ca kaw ci kanam ci barki Cheikh Khadim ci barki Serigne Saliou di président bi Ahlu Café ñu jox kii di sëñ Ablaye Thiam Ablaye Thiam rek ñu am foofu ah jëwriñ daayira jëwriñ daayira ah loo wax rek Ablaye Thiam ah. loo wax ci bis bi nga xam ne ko di ko dëkkatee waa ñoo ngi santaat yàlla bu baax di ñaanal Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko di ñaanal Serigne Cheikh Fall jëmm mi yàlla jëmmal mu toog toogaay maam Cheikh Ibrahima Fall comme ni ko Moustapha waxee rek euh, di ñaanal Serigne Saliou yàlla na suñu boroom yokk ay leeram taas ci barkeem ndax la Serigne Saliou waxoon ci euh, ci Touba rek jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la suñ Touba daan def ci mag ña euh, nagam mënuma ko sax ma barkeeloo ko Euh, tey jii ku ci am jàmm rek war nga sant Serigne Saliou ndax ci ay jamonoom lañu feeñee am na ci ñoo xam ne ci lañu feeñee euh, liggéey bi nag mu ngi ne comme ni nga ko gisee defoon nañ ko daaw nag fekkee ko ren dañuy baaxante rek ngir fekkee ko déwén incha allah euh, biñ ko defee daaw ñëw woon nga fi wax waxtaan si ak ñun ngir daayira bi fu mu sosoo ak li ko sabab daayira bi boo gisee li ko sabab mooy. ñaari jàmbaar yoo xam ne euh, amaan na sax dañoo génn nekk bitim réew euh, di ñaan suñu borom defal leen jàmm yoon ñu nekk mooy mm, falu Diassé ak euh, Baye dañ Diop ak kuñ ñan aame ndax bu ñu toogee dama génn ci buntu kër Abdou Diassé mii nga xam ne wax dëgg yàlla 2010 laa nekkoon ci ay loxoom ba nekk na si dara soppeeku ci ba ma génnee de xëy la ma gone yi woo daal ne ah ñun kat dañoo bëgg a liggéey Sëñ ba ma ne ko liggéey Sëñ Tuuba de neex na moom ku ma ci woo dinaa ci sawar euh, dañoo bëgg a sos benn kuréel goo xam ne dañuy defar ay kafe ma bëggoon nag sëñ Mouhamed Aras Mbacké ñaanal ñu ñu doog a départ léegi bi ma ko waxee sëñ bi euh, bi ma toogee sax laajaal leen ko ñaari yoon ñu wax ma ko ndax man du ma tëb tëb lu ñu ma wax rek ma dem àggi ko sëriñ bi dama ne di càmbar waaye ba ba ñu xam ne dëggu na ci ñoom waaye ba ma leen dégloo ñaari fan ñetti fan ba ko ñeenteeli fan laa xam ne lii jaaxaan nañ ci ci laa jël sama daal la àgg ci sëñ bi wax ko ko bi ma ko waxee léegi dana ma ginnaaw bi ma la defee li ma lay def ba noppi daal la booleeg mbooloo mi nga xam ne ñu ngi aju ci di nam ma liggéey sëñ Tuubaa ku ci bëgg ànd ak yow rek liggéey sëñ Tuubaa bisimilah léegi nag bi ma ñëwee waxtaan ci ñoom dama ne ne yëkkati ànd ak ñoom ba ci sëñ Mohamed muy doomi sox sëñ Falloum sëñ la ak soxna Mariama Mbacke bintu sëñ Sohaybu ba may dem maa ngi ànd ak euh, ku ñu naan Penda Diassé ci soxna yi la euh, maa ngi ànd ak Adja Fatou Gueye di ànd ak euh, ñenn ci gaa yi rek dem waxtaan ceeg moom buñ ci waxtaanee moom it mu nangul ñu loola jox ñu turu Isbul Xaddim Touba Soura boobaa léegi nag yokkute laa ci gis amaana nag. sëñ Touba moo lay soppil sab liggéey waaye may doog a door àndoon naa ci kuñ ñaan Cheikh Faye moom la sëñ tab tabboon mooy président bi waaye dañoo dem suñ borom soppi ab liggéeyam mu nekk ca leneen euh, ñu koy ñaan na foofee mu nekk suñ borom defal ko jàmm yàlla def nag ñu fal kuñ ñaan mu soojaase mu nekk ci ñun te wax dëgg yàlla euh, lañ doon séntu ci moom it macha allah ndax mate na ko sëgg daal gone la waaye ku am jom la euh, mu ngi ànd ak Bada Bamba Gueye ak gars yi nga xam ne ñu ngi nii sama ginnaaw ñu pasteefu moom yàgg na ma wax ci biiri kàddu même bu ma ko wooyee sax danaa wax même bu ñu nekkoo ñaari nit ci pasteefu ñu liggéey Sëñ Tuubaa moo gën fukki ñoo xam ne pasteefuñu kàddu googee nag wallaahi zem kàddu googee nag marqué ma lool te gone bu uh, maanaam xale bu xale bu loxom setee day mën a bokk ki mag waaye mag it bu xelam rafetee mën naa ànd ak xale yoo xam ne dañoo namm liggéey Sëñ ma ñoo diir ba ma ànd ak nag dara wàññeeku ci liñ ñaan Serigne Touba bërigo la ci mbartal boo tegee sa loxo mu dem boo tegu mu dem teg ci sa loxo mu dem ngir bu ëllëgee nga des sa sag ba foofee lañ nekk ginnaaw Serigne Touba moo woote 18 safar fukki fan ak juróom-ñett wax dëgg yàlla mu doon mbégte ci ñun lool loo xam ne ñoo fii ci Touba Soura dëkkub sëñ sëñ sëñ Maxtaar Bintaloo di kenn ci kàngami Seexul Xaddim ndax euh, Serigne Touba wan na ko àjjanam te faatuwut moom sëñ Maxtaar bi Tullo ñaan nag sëñ Fallou mi nga xam ne moo jiite njaboot ki yàlla na ko fi yàlla yàggal te wére ko ak njabootu sëñ Maxtaar bi Tullo yëpp euh, foofee daal Cheikh maa ngi ciy sant yàlla bu baax nag ndax euh, bëgg nañ tamit lu mu mën a fasantikoo rek na mm. xool yi bennoo mm. na xool yi bennoo di xàccandoo di dóorandoo waaw bokk yéen a bokk pas-pas te gëm naa ni ñoom sax ci la nekk mm. waaye dama leen nañ bokk pas-pas bokk yéene bokk bokk jëmukaay. incha allah ndax euh, wat gaala ak yëgoo. Mm-hmm. ndax ñoom wax dëgg yàlla ba ma yàlla boole ñoom ba léegi macha allah. su ma fi nekkee ñu ngi doxal su ma fi nekkul tamit ñu ngi doxal. kon moom ñoom daal sant naa leen ci baax a baax a baax. di ñaan nag suñ borom guddal seen fan. wéral seen cër. ba li ñuy yéene ci liggéey Seexul Xadim suñu borom defal leen ko comme ni ñu ko bëggee. Tektal TV moom ca kanam rek. incha allahu rabbi ànd ak Cheikh Diop. ànd ak équipe bi nga xam ne ñoom nga ànd docteur Wade ak Baye Massamba Diop ak ñëpp rek yal na yal na de yàlla defal jàmm te yàlla guddal seen fan wéral seen cër bu baax a baax a baax incha allah kon ñu waajal dem déwén incha allah rek. incha allah Ablaye Thiam waaw wala ñu yem foofu Ablaye Thiam banaan rek banaan gi moom mënut a ñàkk ndax dama la ndax dama la ci waxoon la rek. waaw jëmmi sëñ Mourtada ma takkal garaat boobu. Mm. ndax ba ma takkalee garaat boobu ba léegi ci laa amee jàmm te dox. ci nga amee jàmbur ga macha allah kon Ablaye Thiam banaana dégg ngeen ko li mu wax léegi dina ñëw ci Bada Guèye Bada Bamba Guèye abonné leen ci Tektal TV Tektal TV nag pour ngeen xam ko tegtal ngay def boo defee tegtal ba pare danga def espace def TV nga abonné foofu bës fu ruus bi bés flash bi beneen bi Tektal TV ngay def bu kolee tegtal bu kolee ak TV boo defee Tektal TV pare nga def espace Sénégal mu doon Tektal TV Sénégal ak Tektal TV simple ñaari benn lan foo ci lamb rek daj ñu ci page Facebook bi Tektal TV l'officiel njëriñal neen dinañ leen ko woon bu baax a baax Bada Bamba Gueye daaw ñu teewoon fi euh, kenn manqué wul ñaan yàlla déwén ñu teewal fi kenn bañ a manqué euh, te tamit ni ni ñàkkee manqué noonu la suñu liggéey di yokke kon yàlla ahlu kafe dafa tudd kafe rek ahlu kafe ci tur mais li nekk ci biir kafe ci gën a tuuti pour ngeen xam loolu ngan di teraangaa ngi fi boo xam ne que dina daj gox bi yëpp bu leen ko jàppee lu ndaw bu leen ko jàppee lu tuuti kafe mooy tur wi mais li ëmb ci biir buñ ko doon bëgg a lim duñ ko mën a lim pour ngeen xamee ko noonu Pastef la koo xam ne que bisu tey bii bu jeexee ngay waajal déwén kon kooku li ngay def du doon lu ndaw sëñ Bada Bamba Gueye ci Tektal TV looy wax ak bis bi. bisimilah bisimilah inna walillah asalaamaaleykum wa rahmatullah naka bu sama jëwriñ waxee ba pare sax amatuñ kàddu di wax. Hmm. ndax ñun liggéey Serigne Touba rek ñu ñëw. te ñaar ñi nga xam ne ñoo ma jiitu yaakaar naa mate nañ ko ndax jëwriñ Amdi Moustapha ak jëwriñ Cheikh Abdoulaye Thiam man naa ne dama leen fee fekk mais doyloo ak wóolu moo tax tey lu ñuy wax rek ne Bada Bamba Gueye kon ñeme naa ko te dañ naan nit mag gone bu liñ koy waxee dañ na gone bàyyi feccam neexee yaay jaajàpp su mbaggee kon tey bu ñu demee ba ñemee jiite wala ñu ñemee diriger si ñaar ñii ñoo ko waree ak ñu nangu ñi mu mel ne daayira bi comme ni ko jëwriñ waxee 2013 hmm. taxaw ba 2019 yokkute gi koy wane ne rek mooy ñi sànq ñi Cheikh Abdoulaye wax hmm. ñoo xam ne ñu ngi bitim réew teñ commencé woon si ñu ko sos du noonu du ñoonu dong ñoo dem hmm. parce que mën nañ ne at yi ñu weesu am nañ ñoo xam ne fii lañ nekkoon te ñu ngi bitim réew te fàttewuñ ba tey ñi ngi xam li leen li doon defal ñuy joxewaat seen i cotisation ak di def lépp li leen war ndax ah, bi mu tuddee ku ci mel ne sëñ Fallou Dias ak Baye Dan noonu laay tuddee Serigne Dame Faye nga xam ne moo nekkoon président organisateur yi daaw bi ngay ñëw fii nga ko fekk mu taxaw ak ku ci mel ne Khadim Lo daaw yëpp ñoom ñaar ñëpp ñu ngi fi taxaw reen yàlla yóbbu ne leen ñu wuti te li ñuy wut fàttewuñ daayira bi kon yàlla leen yàlla taxaw foofu te yàlla na leen yàlla yombal comme que sëriñ bi daj na lépp def lépp hmm. xéewal yee des dañ koy jëli hmm. yàlla nañ ko jëli indi ko si liggéeyub sëriñ Touba bi te buñ ko indee yàlla nañu jariñ ñun ñëpp di wax ne ñun suñ xol dafa sedd ndax ki lay yëgal a sonal hmm. buñ doon tàngal kafe nit ñi duñu du ñu romb naanuñ ko boobaa dañ koy jéem a tas xool def wala ñuy defar yeneen teraanga si biir nit ñi lijjantuñ ko dañuy jéem a def wala ñu koy def yéen ñi nga xam ne tey télé mag ngeen siiw ñëpp xam leen ndax kenn ku ne xam ne sëñ seex mi kenn ku kuy toog rek di jàkkaarloo média bi mu ngi lay gis kon ngeen yëg ñu yéen ba ñëw lool sant yàlla la waaye sant sëriñ tubaab gu wér la ndax moo ñu ko defal bu dul woon mooma bu dul woon ak tey daal lu bari ñaaw ndax keroog ba muy dem nga xam ne liggéeyu géej gi la dëgmal nee na sama bo digganteeg sama boroom leer na ñi waaye sama digganteeg samay taalibe laay sàkku ji sama borom kon kooku ñun amatuñ fayam mm-hmm. bu ñu doon laaj ay millions. tañ am ko dañ koy joxe même buñ ko mul dinañ rayante ba joxe liñ man te wallahi ñi nekk fi ñëpp ay jàmbaar lañ kenn ku ne rayante nga joxe loo xam da ngay joxe bay dolliwaat sa poste duñ la sonal kon sëriñ Touba rek fi nekk te ñu bàyyi xel bu baax a baax xam ne jamono ji ju nekk képp koo liggéeyal ku dul Serigne da ngay perte ndax marchandise um suñu borom mi mu yoroon mm-hmm. da koo teg si loxol yonent bi yonent bi jox ko sëriñ Touba mm-hmm. képp ku bëgg benn bénéfice si marchandise bi da koy jox ne ko am jaay te jaay moom ngi mooy lan mooy jaayante ba ñàq si bisam bi di dix-huit safar mm. ndax li ñuy gàtt gàtt àlliwoo daan nañ mu ne dix-huit safar masaa natt bi mooy dolleeku mu toog ba mu ñëw natt bi ñëwul mu koy xaar ak koo xam ni mu méttee ngay xaar bi war a ñëw su boromam ne ko natt bi jeex na tey mu ne kon leen sant leen ma sama borom kon ñun kenn ku nekk fa nga jógee bari na ñoo am ginnaaw soo boo ñëwaatoon dañuy fekk dañuy wutiwaat pour bisu 18 safar bi mm. kon sant leen sama borom la wax. war nañoo rus gan ñëw romb ba dem di xiif wala ngay mar gan ñëw ba dem naan sama bopp day met ndax naanuma café kon dinañ rayante ngir jëmmi Serigne Touba dinañ rayante ngir jëmmi kattan gi ñu Serigne Touba jox ñu fexe ba gan gu fi ñëw boo dem kontaan ne ñama romboon foofu kat déwén yàlla naa leen fa rombaat ñuy ñaan Tektal TV tamit ah, ñun suñu yëf la bokkatuñ ko ak kenn ñun ñoo ko moom xam li moom gi yëg gi bis bi ni mu xatee ngeen bàyyi lépp loo leen def ñëw daaw nii ngeen ko defee woon li ma waxoon rek laay waxaat bu dee ñun li ñuy liggéey Serigne Touba mi ngi koy gis télé bi yàlla na yokk ba raw bépp bu fi nekk loolu laay wax ñu yokk ba raw bépp bu fi nekk ndax xam naa boobaa ñun suñu njëriñ la ñu ngi sant nag ñëpp ndax waa koñ bi tamit jàppale nañu kii fii ñu nekk ñi ko moom dañ ñoo yaatal ba mu yaatu suñ papa yi ku ci mel ne Baye Abdou Diassé ku ci mel ne sëñ Modou Gueye ak ñëpp ñoo xam ñi ngi ci koñ bi Pape Cheikh Faye Pape Thierno ñoom ñëpp dañ ñoo jàppale am ñoo xam courant sax lañ ñu jox te sonal ñu si dara ñuy def fii lu ne ndax berneel gan yi ñoom tamit ñoo xam ne gan ñee leen ñoo ñu yëkkati ñu bàyyee ñu lool kon ne yàlla na leen Serigne Touba fay yàlla nañ gudd fan ba seen doom yi fi nekk jariñ leen loolu rek laay ñaan di leen wax ne nañu bàyyi xel daal ne nañuy baalente àq tey jéegalente ndax yonte dañ salloo kama raytu usalli bala maa gëm ne ay julli dëgg ngeen li ngeen yéene seen bopp da ngeen ko yéene seen i moroom te ñun yaakaar lu baax te ñu xalaat ne metti woon na bam naan yaa maalikal mulki yaa man jalal xawt iron jamihal wara yaa hadin roda dafa tagg bañ siifloo ko mu jàkkaaroog boroomam naan ko mi aji dimbali ci yow mi ku lottu yaa ku am yaa ko teral mais ku bég yaa ko bégal na yërëm jaam ñépp si dara daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga moom la doon liggéeyal kon ñun kontaan nañ amatuñ lépp leen luñ wax yàlla na leen Serigne Touba yokk yàlla ngeen dem sa kanam daayira bi yàlla na yokk sa kanam te gën a góorgóorlu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di lay wax ne wallaay lancim xol bu tooy laay waxee ndax jëwriñ yi wax ba pare mënu mu woon a wax sax waaye nag force la rek yàlla nañu sëriñ Tuubaa taxaw salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf kon mbokk yi waa ahlu kafe la woon gis ngeen Bada Bamba Gueye moo doon yëkkati kaddu yu am solo yooyu ak euh, Moustapha Diassé président ak ab euh, Abdoulaye Thiam Banana jëwriñ yi kaddu yi am na solo bu baax a baax a baax seen numéro téléphone pour ku ci bëgg a jàpp ku bëg a barkeelu def ci lu baax ñoom nag xaaruñu genre politique yooyu di xaar ku ci def pour déedéet ku ñëw fekk leen ci ku ñëwul ñoo ñoo ngi ci. loolu moom loolu moom moo am ku ñëw sabak yëpp ku ci bëgg rek parce que bisu tey ngeen tàmbali waajal déwén. waaw loolu moom ku ñëw. ñoo ngi ci ku ñëw te ñoo ngi fi. Hmm. numéro téléphone yi bu ci mel ne sama numéro. waaw 77 la. 77 411 63 72. bindalal maire bi foofu bu dee mënul bundal boppam paa bi itam bët yi neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro. waa ahlu café lan soxla jàpp ko bu baax pour bañ ko fàtte. 77 77 411. 411 63. 63 72. 72 waaw ak 72 nag 7 ak 2 la pour ku déggul daaj. waaw mooy 72. waaw ak numéro tamit Cheikh Abdoulaye Thiam xam naa bu paree dana la ko jox ndax mi ngi si toble bi. sëñ Abdoulaye Thiam boo ko jàppee mooy 877. 77 856. 856 35. 35 35 waaw. 856 35 35 numéro Abdoulaye Thiam. banaana sëñ Moustapha waaw 77. waaw 844. 17. 89. 844. 17 89. 844 17 89 numéro Moustapha Diassé numéro yaa ngi noonu kon euh, yëpp am na WhatsApp de ah. waaw kon ku ci bëgg a def lu baax rek mooy la daam looy wax. waaw mu mel ni numéro yooyu ñu joxe nag. Hmm. yëpp rek benn bu ci waa jël rek mooy numéro yëpp. benn ndax gars yi. benn lépp lu ñëw rek dana egg si fii ci base bi. ñuy tamit ñaanal ki fi nekk. Serigne Mountakha Bassirou borom mbégte mi bi mu ñëwee ba tey dañoo kontaan bi mu fi nekkee ba tey dañoo bég di ñaan mu yàgg fi lool ndax ñëpp nekk ko ñëpp mbégte lañ mais mbégte mi dafa yaatu mm. Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér amiin Serigne Mountakha yàlla fi yàgg te wér amiin waxal abonné leen ci tal TV ah Tektal dañu abonné ndax ah, yow mi nga xam ne yaay seetaan lii mm. te liggéey Serigne Touba ñor la mm. ak lépp loo man di def boo dee bëgg ngaa génn wala bëgg ngaa jëriñ dara Serigne bi da ngay abonné Tektal ndax mi nga wane liggéeyu Serigne ak euh, képp koo xam ne te maa ngi gis yu am solo yooyu def hmm. ndax nit ñi léegi seen tawat yi bari na leneen leen bari te yaa ngi gis si ngay dugg di génne li koy saafara hmm. kon nañu bàyyee xel Tektal TV bu baax a baax hmm. Tektal ka Tektal nañu yoon wi nañ ko bàyyee xel fi may fi waxee mooy eh, boo nekkee ci mbir ba borom mbir mi ñëw da ngay xam ne li nga nekk yow ndax kii di dugg si ni mooy sëñ Mamour Mbacke moom Serigne Fallou Mbacke Moussada borom leeru jant moo nekk noonu ngay nuyul sëñ Mamour Mbacke jërëjëf borom kër gi daal ñëw na ci këram Mbacke waaw Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke ndax lépp maamam la rek kon sëñ Mamour Mbacke defal ñu ñaan waa gis naa si ay kii macha allah. macha allah góor gën a la góorgóorlu rek. incha ñii nag dañoo doon nit ñu jàmbaare nit ñu baax. Mm. nga xam liggéey seen Tuubaa rek moo leen ñor. Mm. ma ñëwoon fii ci sëñ Seexuna far seen leen rek ma a xaar ma ñëw jàll si. Mm. pour gën leen a kii daal. jàmbaar lañ ñun liggéey sëñ Tuubaa rek lañ bëgg. te boo gisee taalibe bu ci nekk daanaka sa day sedd. te ñoom ñii ci loolu la ñuy dox kon yàlla na leen Sëñ Tuubaa jàppale yéen yi nga xam ne yéen a ngi wëri di xool lu baax li nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi yëpp ngeen koy ngeen ci wane ak di di di di leen gën a ñaax lool tamit yéen tamit liggéey boobu nga xam ne yéen a ngi koy doxal tamit kenn du yéen kon yàlla na leen Sëñ Tuubaa dolli jàppale yéen ñëpp rek damay ñu weer waaw ñu gën di ko kii incha allah Euhlou Café ak Tektal TV moom allah bëgg def ko hmm. waar wuy wéy daal macha allah macha allah am na solo defal ñaan baax mooy hmm. euh, dañ daan wax sax bu njëkkan olof da daan wax naan ay picc ñoo daan fekk garab waaye te jii bu garab bi jógee fa mu nekk ñoo fekk sa ay picc rek bëgg na leen a dimbale garab di lépp ndeysaan Seex <laughs>